jërëjëf la régie jërëjëf ñu dellu soit ci combat bi diggante ndigal ak Weuz Diambar waaye waaye Eumeu Sène a rendu hommage à Falaye Baldé a rendu hommage à Mohamed Ndao Tyson mu def tous bu neex tous bu impressionnant moom Eumeu Sène dégg galañ lool diggante ndigal ak Weuz Diambar Weuz Diambar à gauche ndigal à droite ñi ngi lewtoo ñu ngi damantey baaraam ñoom ñaar bëre nañu 10 minutes noppal ko Malick Thiandoum dellu si waat Alboury ngi ci digg géew bi. bi Eumeu Sène di tuus bëre nañu. Weuz càmbar. ndigal gëdd na ko. Weuz taxaw ci ay tànkam. ñu ngi xeex. ndigal Weuz càmbar xeex nañu. xeexaat nañu. ndeysaan diggante ndigal ak Weuz càmbar ñoom ñaar ñu ngi leew doo. Alboury jigéen na ci digg géew bi mi ngi ci plateau bi doog moo daan. Lamine ñaar ñi dañu xasante keroog de. waaw moo taxit allah alaaji Cerno ñu jël seen temps. loolu jàmbaar digal jàppante baram bàyyante ay lambi Ama Baldé jéeg Modou Lo nii la ma affaire yi rombee nii digal wës jàmbaar rien digal digal wës door na ko alaaji boobu dal de ah fayu na waaw waaw fayu arrêt de gauche boobu daan door na ko droite boobu. waaw waaw door na dooraat. lu xew. tànk ba lay jàmbat tànk lu xew tànk lu xew tànk lu xew. cheville bi daa crampe wala lu xew. lu xew de. lu xew. Ah, xew de est-ce que amul déchirure. monsieur le procureur de la république. jërëjëf. bu réew mi dalee am nga ci wàll. madame Ndour merci. teg fatu le corps maa ngi lay nuyu. ndeysaan Moussa Diop. Samba maa ngi. Weuz Diambar entre les mains des Toubib. ma ne Weuz Diambar dem na Ardo. ñu ngi waa kër maam Seydina ni maamul Mahdi Muntazar. est-ce que tànk bi amul problème. est-ce que amul problème avant muy ñëw ci làmb ji. mu yëngatu mu yeewu waaw. en tout mën na ko dal aux entraînements. les médecins duñ koy xool. Malick moo tax bëree blessure wóorul. wóorul de ah aywa Sidi Seras baax la Sidi Seras. waaw taalibe Diène. baax la. ay le 24 décembre Reug Reug ak ak ak Bombardier. Eh, sëñ Yaxam eh. sama doom ji. eh Lamine. ay waay ak bébé Diène. Eh, ay waa Seras. ama neex ak bébé faal ak ñoom Mansour ñëpp a ñuy parce que Weuz jàmbaar dafa dem Ardo xamuñu lu mu fay jëlee. on va voir on va surveiller. Weuz jàmbaar comme bu mu wóoree ni mënul bëree naan lii moo mu ngi noonu. mu ngi noonu ñu dellu si waat Alboury sa combat Alboury sa combat ngi noonu jëlal micro bi yow la àdduna yëpp di déglu. waxal njëkk Alboury jëlal micro bi. waxal commentaire ko. waaw combat baa ngi nii. waaw. Euh, xam nga newoon naa la kii du kéwal. waaw. xéwal la. waaw gisoo ni yombee nii. waaw xéwloo ko waaw commandé. maanaam sonn ma li ma bëree sax man seetaan ko fàtte seetaan ko waaw. mais da ngay commentaire ak. waaw maa nekk nii. a ngi Leewtoo maa so maa ngi mel ngeen bu xeex. nii la demee. ma daw añ ko. Ah. mu dëgg la mu dëgg ma mbot. nga ko. dama ko mbaat. li mooy mbaat. li mooy mbaat. waaw noonu daal la demee di sant ñëpp di sant waa Grand Médine bu baax a baax a baax. di gërëm ku ci mel ne Pape Malick Ndour. moo jëndee moo ma jëndee 2 de billets. songoon nañu jëndal may tike yu bari. digal woon jàmbaar digal woon jàmbaar. digal ko. war na ko toppa war na ko toppa digal bañ na digal ña nga jàppante ñoom ñaar. laay laay la laa songoon nañu ñoom ñaar diggante digal ak. Weuz Jambar demoon na ba war ko ndombo. digal bëre bërëj. digal bëre bërëj. ku ndengeñ noonu. digal Weuz Jambar. ku ñu noonu. digal moo ndengeñ Weuz Jambar Weuz Jambar jàpp ci geño yi. ñoom ñaar songoon nañu diggante digal ak Weuz Jambar Malick Thiandou. digal Jambar. Weuz a ngi wut fu Diggi door. waaw day day lijjanti day lijjanti maa jàmbaar ndigal. parce fi mu jàpp dafa baax. ci poxtaanu ngemb li la téye. fa waaw fa la xam ne mooy woos jàmbaar bi ngi téye ci sangoor yi ci digg li. ndeysaan woos jàmbaar it fi mu téye. Malick Thiam lu téye baax. Abdou Karim Diop le procureur de la République bu lay seetaan. bonsoir monsieur le procureur. ñoo ngi koy nuyu ñoo ngi koy jox wàccuwaayam. et tout le respect. Abdoulaye Aziz. songo nañu ñoom ñaar. Moussa Diop maa ngi leen di nuyu. ay le 24 décembre sama sët yëpp nuyu naa leen ak suma doom yëpp digal te digal ak Wos Jàmbaar. Wos Jàmbaar digal. mais koo da koo dengeñ ak. woo woo dafa dengeñ deful dara. dafa dengeñ. bot na bañ na. mais ñi nga yóotu bul yóotu foofu bëreel fi nga toll. daa bëgg mu siggi. digal door na ci faar yi. door na ca kër nopp ka nga door baaxul de. digal na ko sol. mais ndengeñ ba tax ndengeñ ba Malick. waaw mais boo déggee da ngay actionné. action réaction Malick Thiandoum. mais la ngay wuti sori na génneel sa loxo. parce que ndengeñ blocage la xeexal moom fi nga toll. boo débloqué wul bëre bi du débloqué wu. dëgg la da ngay débloqué bloqué débloqué bloqué waat. maa ni bëre bi neex na tekki loxo ni joorom lay génne wóos bu ko tegee fii ci ci concu concu ndigal. bu ko noojoo loxo mu ñëw. daan bi dañ. ndigal daan déggee nag da koo kalki ndegeñ. voilà kalki ndegeñ wóos jàmbaar jàpp. kalki bi dara. wóos jàpp. kott na ko daan na ko. ku daan wóos. wóos ku daan wóos xëcc na ko kott ko. daan na ko. kal na ko daan na ko. woos daan na digal ko kal ko daan ko. woos daan na digal tànk ba. waa jàmbaar waa Ngaye Mékhé. tànk ba tànk ba. waa Cëgg waa Baylar. digal waa Kër la sa nga wane dina bagage. jàmbaar de kon Weuz jàmbaar daan na digal Weuz jàmbaar jàmbaar la. on revient sur le plateau et en direct on prend Albouri mi nga xamante ne moom moo daan Keweul. Albouri les soo bëreewul sa adversaire su bëree jàppoo di lijjanti jàppoo la. boo ci lijjanti bu ñu lijjantee nga ñàkk yow. dëgg dafa ndengeeñ rek taxaw. waaw boo ndengeeñee bloqué bër bi. kële débloqué moom moo lay daan. mais Malick ba léegi mi ngi ci digg a été trophée de Albouri. en le trophée de Michel Lat Diop moom la Youssou Ndour wayoon. Albouri demal tey